lerufisquois.net ñëpp japp ni site internet bobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew présent asalaamaaleykum maa ngi tudd Moussa Fall ñu gën ma xamee si Moussa Wade man nag euh, daan suñu doole rek moo ñu tax a jog ñu ñëw ñu fitna daaw dañaa dañ ko fal pour mu dimbali ñu mais faluñu ko pour mu yokk chemin bi parce que ñun ay safooru kalandoo lañ ñuy daw garage u jokkul dëkk jokkul du dëngeej fii lañ juddoo disma séerab géej considéré fii lañ dëkk na xam ne ñi mu teree liggéey fii lañ dëkk ñun ñii ñoo ko fal waaw mënuñu jële marché yóbbu ñu jardin public loolu mënul nekk nga dugg ba pare jëli ji yóbbu am dugg fële jardin public yenn ko pour jël oto jokkul loolu mënul nekk bu waaw ñun nag dañ bëgg mu delloo ñu fële ñu nekkoon wala lu ko may dinañ trouver beneen solution boo xamante ne nii bu boobaa du ne population bi nag ñëpp ñun la ñuy déglu ñun ñoo leen wax ñu toog xaar parce que nous, nous pour def fins, ñun dañuy daan suñu doole ñun dispensaire nous de lañ de dë de école de de si wetu géej di de suñu doole rek la am Ah, bonjour monsieur le maire, je m'appelle Matar je suis le chef de garage de Djokou. J'ai une solution à vous proposer. Parce que c'est incohérent de quitter le marché, pour aller jusqu'au euh, Gare pour prendre un taxi pour aller à Djokou ou à la cité Gabon. Ça, c'est pas logique quand même. Moi, mon solution, c'est euh, au moins, il y a un terrain qui s'appelle Terrain Mourir C'est près de l'école de euh, Tepsi Niaoufei. On peut rester là-bas. Là, c'est beaucoup plus compréhensible que de le marché jusqu'à Curitiba. Ça, c'est illégal. Ça, c'est pas normal. Il faut, il, faut, il faut y penser là. Il faut penser à ça. Voilà, c'est une solution que je propose. Voilà, c'est ça. Thank you. en tout cas moom bu ñu dimbalee ñu jël ñun sonn nañ am na ñoo xam ne dañuy yeewu daw ba 10 heures jox seeni soxna dépense ñu dem toog gi ñaari fan ba ñetti fan si tey liggéeyuñu nañu dimbali ay waay daaw ñaa dimbali ñu ñun sonn nañ daal naa man li ma mën a comprendre mooy lenn daa xi safar ba affaire voiture man looloo ma gën a métti man mi man ndax ñetti fan a ngi liggéeyu demul te xamul ne nu ñu dëkk bi juri dëkk bi leen nu ñëw Colobane nga dëkk bu toppul lan dëkk lépp benn yoon wi la bu fekkee rek daa am loolu jàppal nga baal nu defarul dara noo la fal suñu yor yàqal be si nga a ak Aliou Mar daado ñaa nun niñu laaj ñaa nun man deewee nun waa Jokul suñuy koor nu jéggi tali bi benn deewee suñuy koor danoo def direct du ñëwee bu nu Jokul kaw suñu koor nu jéggi tali kon nun suñuy client waru ñaa mën a jéggi tali jéggi tali route nationale wóorul lu nekk mën na see am incident nga fa leneen lu nekk mën na faa am dimbali nu ngir yàlla ak nooray